asalaamaaleykum gars yi ngi leen di nuyu yéen di leen ziar di leen jox seen wacce way ha ah. di leen ñaan ngeen partager vidéo bi gars s'il vous plaît vidéo bi partager leen ko way parce que franchement franchement ñi nga xamante ñoo suñu force de l'ordre yi ha ah, il faut que ñu wax ak ñom quoi il faut que ñu wax ak ñom ñu am toute dignité quoi yaa ngi dégg ñu doon ay tuuti ñu doon ay góor quoi su ma ko mën waxee noonu nañ doon ay góor ñun for sunu suñu frère yi nekk si armée bi si force de l'ordre yi gendarme yi ak jëm jëm jëm leen a dëggu jëm leen a nekk ay nit jëm leen a ay nit quoi Macky Sall mu nii sant leen li mu leen ba pare daw génn dëkk bi naka la Sall moom miñ miñ dénk Sénégal yëpp dénk ko suñu alal dénk ko suñu avenir njaboot yi dénk ko suñu lépp dénk ko réew mi ah mën a dawee génn dëkk bi yeen ngeen bëgg fi taxaw naan da ngeen di song ay seen seen seen seen moromu seen moromu frère hmm? nang ngeen mëneen def lool yeen force de l'ordre yi xana Macky Sall mo leen gën xana yaay Macky Sall mo gën seen yaay yeen xana baay Macky Sall mo gën seen baay yeen ah wala Macky Sall mo nga doon doon nit Macky Sall mën yoni Mambay Niang mu dem porte prendre Ousmane Sonko ci lo xamantene Mambay Niang amul droit porte prendre Ousmane Sonko parce que enquête bi éggul Mambay Niang fu mu ni dafa setul wala mu tilim ba nan man dama set Mame Mbaye amul warul porte plainte kenn ci dossier bi kenn la warul Mame Mbaye Niang warul porte plainte parce que dossier bi seetalu ko enquête bi dèjà li mu jot a génne dafa jàpp Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang ci loolu pour naan day day jéem a interdire Ousmane Sonko dañ siy jéem a profité pour tere Ousmane Sonko mu nekk candidat Macky Sall fu mu ne pour ñu fete loolu li nga xamante ne moom moom moom lañ jekk bi ñu jekk Ousmane Sonko Macky Sall loolu ñëw di fete loolu ngeen xamul yéen Macky Sall dara indi ko Paris parce que dafa jekk Ousmane Sonko ci affaireu bandi parce que li affaireu bandi la quoi li amul yoon du dara du loi du du dara ça ah, Ousmane du loi du dara Mame Mbaye Niang amul droit porte plainte ben doomu Sénégal même ñi mu ñëk a porte plainte sax ñu daaneel leen parce que justice bi justice su caga la Sénégal amul justice ay magistrat ay ñu ñu mak sal teg fa du ay magistrat ay goor jigen lañu ay borom ñaari tour lañu justice bu Sénégal dafa bëri ay borom ñaari tour te lool Cheikh Omar Diagne xamna ko dañ leen la Cheikh Omar Diagne mom du leen ko wax ñii maka Sall jël di leen atteloo doomu Sénégal yëpp ay borom ñaari tur lañu ay Aziz Seck ak ñoom ñëpp ay góor jigéen lañu. Sénégal góor jigéen dañ faa fees dell nekk ci gouvernement bi nekk ci li nga xamante ne moom mooy justice bi ay góor jigéen kese la. góor jigéen yooyu ñoom ñoom la Macky Sall di pun bëmëx ci kaw ñi mu bëgg a tër rendi leen mu tër leen rendi di ngeen Macky Sall fu mu ne nii tër na Ousmane Sonko dem na ci tubaab bi pour tubaab bi ñëw rendi Ousmane Sonko Macky na Sénégal. policiers yi nag man man man franchement man dama laaj dama je me demande si ñoom Sénégal lañ juddoo quoi policiers yi ñu nekk si gendarme bi ak police ak ak gendarmerie bi ak police bi man je me si ay nit la ñu déjà. Sandrine bien tranquille mais ñoom est-ce que ay nit lañu yeneen nit toog Macky Sall ñëw tayle leen ak Sénégalais ba pare dem toog France ñëw fii France fii di fi nal ay ay ay ay ay vin ah non dafa yomb quoi barki yàlla da ngeen di nangu loolu yéen bi ngeen di sol tenue Macky Sall dafa xam da ngeen xam Macky Sall xamu leen ah waa jaay faay oui ah, <laughs> ah, non day metti ah yéen bi ngeen di sol tenue da ngeen xam Macky Sall ngeen xam ñu bëgg leen pousser ay pour ngeen di dal si seen kaw ay frère la ngeen def kër Ousmane Sonko la ngeen fay def kër Ousmane Sonko la ngeen fay def lan say, nekk leen ay góor nek leen ay gor yeb ñun bëggu ñu nekk nek na ay cadeau yo xamante musu ñuko bëgg yëkëti seen kaw mais seen taxaway dafa ñaaw ci réew mi yeen policier ak gendarme yeen lay waxal seen taxaway ci réew mi dafa ñaaw yeen duun ay dëgg-dëgg doomu Sénégal yeen yeen ñi fi doomu Sénégal yi tour seen deret yëpp pour ngeen mëna doon li ngeen doon tay ñun ñu ñëpp ñu ñëpp ngeen jël leen sul leen saw seen kaw bëgg tax fi naan na yéen di affronter peuple bi yeen yeen war ngeen rus lolu yeen ruus loolu yéen wur ouais ouais gars yi lii na yegg si ñoom nañ ko dégg ñoom ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy policiers ak gendarme yi nañ dégg li may wax. dem nekk tuuti ay góor dem leen nekk ay patriote li tax ngeen sol tenue bi nekkul pour Mame Mbaye Niang ñëw di leen jàpp di leen manipuler comme ay yaa ngi dégg comme comme comme kooyam bi yan force de l'ordre yi wax li tax ngeen sol tenue bi nekkul pour Macky Sall ñëw di leen manipuler comme nu muy manipuler ay xuram. loolu mooy dëgg wax ji du neex mais il faut que ñu wax nañ ko ngeen xam ko. dara dara dara obligé wu leen ngeen di dal si kaw askan bi yéen yéen policiers yéen laay waxal ma gis ne ngeen yor seen fourgon jàpp ne yéen bu yàlla di wàcc sax da ngeen koy affronté da ngeen di nax seen bopp barki Seydina Mohamed bu askan bi jugee bu askan bu jugee da ngeen yéen non ngeen di nax seen bopp rek yéen a ngi fooyee seen xel bu ngeen foogee seen fourgon yooyu ak seen gaz lacrymogène yooyu moo mën a téye moo mën a téye réew mi wala yàlla ngeen nax seen bopp da ni di nax salam ini Macky Sall mi ñu jil réew mi jël na ay bagaasam dem jël ay doomam génne dëkk bi yéen yéen léegi doomu xaram di jël di leen bëma askan ngeen di rey kau askan Apa ngeen bëgg a ñëw askan bi bëgg a cibir ci biir sénégalais no non karena xanaa sañu leen ko xanaa sañu leen loolu xanaa sañu leen loolu yéen yéen mënu leen ñëw dur askan ba ay fetal ba pare bëgg ñu wat dugaat ci bir askan boobu dafa tak ay jabar da nga dégg dafa tok dafa naan ataay dafa waxtaan dafa demand ay xew loolu xanaa sañu leen ko yeen force de l'ordre nek leen ay nit Macky Sall jappé wu leen ay nit bu fekkee xamu leen ko man dama leen koy wax Macky Sall jappé wu leen ay nit bu leen jappé won ay nit dina tok and ak yeen xex xex bi ñom ñep Moussa Fall ñom Bokar Yàgg ñom ñep seen njaboot yi génne nañ leen Sénégal di leen utiliser comme ay xaj ngeen koy accepter yeen loolu war nañ ko nangu waru len ko nangu waru len ko nangu ñi li ñi li pare pour dóor ay fétal wala dina dal sen kaw ay sénégalais lañ té dañ leena togn da no sax sen alal détourné sen i milliards ñu nek ci souffrance jaay sen hôpital hein ñun taxaw di fipp ngeen bëgg dal sen kaw yeen yeen nek leen ay nit wala ngeen doon ay sénégalais wala man lii laa amoon pour pour pour pour jàllale loolu yeen yeen yéen policiers yéen laay waxal ak gendarme yi nekk ay gor parce que ñi leen jité ay gor jigen lañu yéen bu ngeen jige nan nan askan bi ay minable lañ mais minable ñoo leen jox ay ordre yoo leen exécuté xoolaat leen seen bop ñu leen di jox ay ordre pour ngeen dal seen kaw propre askan ay minable lañ ñom ay minable lañ man Macky Sall la ngeen daw na génn dëkk bi daw na daw na bi ñeen bu ngeen fi tok di ay ndigalu Moussa Fall bo xamanteni ni ba pare ah ñi nga xamanteni seen seen carrière jeex na ñu leen di pousser kaw seen kaw asan ngeen koy nangu nek leen ay góor man loolu amul pour wax leen ngeen for ak force de l'ordre voilà